asalaamaaleykum sama gars ñu baax yi man la seen jigéen ramu maa fi ñëwaat tey nag waaw tey nag moom dama fi ñëw ak recipe bu neex moom wax dëgg recipe bi ñu ngi ko ooyee c'est bon bon nag wax dëgg maa ngi ko njëkk a lekkee bi ma nekkee xale bi ma demoon jigéen soor in this world fu mu nekk nii world of technology wax dëgg loo bëgg a mun di nga ko mun ndaxte internet baa ngi fi YouTube baa ngi fi loo bëgg a jàngare di nga ko fi jàngee soo ma togg ko nag recently nag ma ne na dinaa ko film nag pour suma subscribers yi ñoom tamit ñoom mi nga xam ne xama xamanguñ ko ñoom itamit ñu jàngee commencé soo nañ dugg sa vidéo bi incha allah léegi ingredients yi ni ñooy dem si sebon bi waaw lii waas la waas moom fu mu nekk ni mun nga koo amee si african bitik yu bari su fekkee ne yaa ngi bitimi réew dangaa jël raxas ba mu set rek raxas koo limon waaw den nga taraas taraas ko den nga am noonu paañ loolu paañ la mun nga koo am fii tamit ñu ngi ko ooyee kokuls bu tubaab bi dafa utee ak ñun buñ dee use nag waaye tamit boobu tamit neex na trop dinaa try ma insert picture bi somewhere si vidéo bi so loolu ma am suma king prawns mooy prawns bu mag bi waa den ma am suma crab moom it ma raxas bem set den suma léjum yaa ngi nii ma am suma li ngi xob den loolu noonu kii la kaane bu dija bi den nga am sa cucumber kaani bu dija bii nag moom safut kaani moom sweet pepper bi la den lii nii vegetable yi européen bi la yu anglais boobu lifin la liik moom la ñoo ooyee liik moom tamit bu baax la ma am suma garlic suma laaj ma am suma ginger loolu noonu smoke sea salt la waa bu man maa ko defaral suma bopp dinaa leen woon vidéo bi tamit den bii nii tamit fish sauce la waaw fish bii tamit man homemade la maa ko defaral suma bopp parce que dama ko dee lekkee lu bari ak kenke boobu tamit yan dish la dinaa leen woon recipe boobu noon tamit incha allah ak ni maa defaree fish sauce bi si yàlla àndee so loolu vegetable seasoning la. waaw den nga am sa daak soya sauce ma am suma tamaate am suma ñaari kaane yu dija yu saf bi den ma am fii nii suma géeja waaw géeju koŋ bi forox la def neex ba bugga de ma am si ñaari dog den fii nii ma am suma ranxa bisaab waaw maa ko defaral suma bopp ranxa ko bem neex den ma am suma netetu den loolu fish seasoning la waaw di nga ko mun a amee ci Asian bitik yu bari bi chili and lemon seasoning la yëpp da nga ko dee mun a amee ci bitiki bitiki Asian si den ma am suma Dijon mustard bi lime juice la for balsamic vinegar ma am suma sea salt den bi black pepper pepper powder léegi si en bi noonu rek loolu liñoŋ la liñoŋ yi maa use la pour defar sauce bi dañ ma am suma limoŋ tamit mooy limoŋ bu kii bi bu yelo bi soo fii nii nag damaa ferej suma vegetable si yëpp bu ma ko jëlee ferej ba baax mooy yi maa war a seasoné kii bi jën bi moom lay kii ferej ñi ma ko ferejee ba pare def ko sa blender bi aat si yeneen seasoning den ma ñëw blend ko dinaa leen woon ni ma ko defee ñoom i tamit benn benn léegi su fu ni nekk nii suñ blended mixture baa ngi nii waaw yii nag lii lay use nag pour eh, mariner jën bi so man ngi faa def chili and lemon seasoning bi def naa si ñaari table spoon waaw chili and lemon seasoning bi. fish seasoning bi tamit moom itamit def naa si ñaari table spoon. léegi next maa ngi faa def poobar waaw. poobar bii nag comme ni ma leen ko waxee woon man maa ko walal suma boppam mooy poobari doom bi man moom laa dee jënd ma jël ko walal ko suma boppa wax dëgg moo ma daaxal yu pawda yuñ dee def si paquet yi. den maa ngi faa def lime juice tamit mooy limon bi soo amee limon bu green bi rek mun nga si nal den ma def si sea salt seasoning bi ma doon wan noonu moom laa ciy def ni one tablespoon waaw den ma def si dark soya sauce tamit wis ko si léegi nag ñu def si nag suñ mostarda waa bi Dijon mostarda la moom itamit mun nga koo amee si bitik yu bari. soo léegi maa ngi siy nal half of limon bi limon bu yellow bi moom laa siy nal nii. ma def fa some oil vegetable oil moom laa siy kii sotti nii leen ma mix yëpp. léegi bii laale naa woon nag tamit bii nag jimboo la waaye prawn jimboo bi la waaw moom itamit dafa neex ba buga a dee man di ma use jimboo nag fu mu nekk nii waaye su ma toogalu am jën prawn jimboo bii nii dama ko dee use parce que dafa neex dafa am this prawn flavour waaw soo moom laa si kii nii moom laa tass tas noonu den damaa mixi loolu noonu yëpp all together den ma mariner suma jën bi léegi nag next nag li ma defar ni mooy raw sauce bi waa sebo bi nag daf dee ànd ak ñaari soos benn bi sauce liñoŋ bu ñoo tooga la den beneen bi nag raw sauce la raw vegetable soos soo dama fereg ni suma liñoŋ den ma fereg suma yeneen légumes yi tamit ma def yëpp si bool so bi ma paree loolu noonu nag li ma def fii ne dama steam crab bi rek crab crab bee prawns bi moom lay steam nag ak tuuti ndox waaw tuuti ndox laa ko steamee rek lii tamit daf ko de gën a jox flavour so waaye looloo ngee steam si biir maa ngi lakkasuma jën bi si biti jën bi nag bi yoon dama ko defee caakool green mun nga koo def si sa oven bi tamit mhm, boobu tamit dina neex waaye eh, man tooga bi moom dama ko defoon si biti waaw nga sati mariner buñ marine woon jën bi so moom laa si kii nii riib nii tuuti rek waa on each side ma lakka ko bem ñor so at this point nag fu mu nekk nii fekkoon na suñ crab bi moom tamit steam na enough so ma teggi ko rek moom tamit bi ma paree lakka jën bi moom itamit ma lakka ko tuuti because crab bee prawn bi moom ñor na ba pare already so dama koo lakka nii tuuti rek pour jox ko kola rek ak pare pour jox ko that charcoal flavor léegi nag maa ngi si squeeze nii lemon because seafood lañ wax seafood moom na forox di lii moom nag damaa ñëw toog a maalo bi soo dama njëkk a def diwlin ma bàyyi ba mu tànga tuuti den ma def liñoŋ ma ferej liñoŋ def fa den ma kii fa géeja saani si géeja nag soo dama tooga liñoŋ bi tuuti rek ba mu dee tuuti rek du dee bu baax tuuti rek waaw den léegi nag ma def ak paañ bi paañ bi laa si sooti nii bi ma defee loolu ba pare léegi na ma sooti si ndox waaw nag si too sotti sa ndox mu ndox boo xamante ne dina mën a tooga sa maalo bi waaw comme maalo yi moom dañ différent maalo boo mun di use rek yow di nga xam àppi ndox bi nga faa war def so nga def fa ndox boobu noonu den nga raxas sa maalo ba mu set soo ko raxasee ba set nga sooti ko nag si biir ndox bi nag nga yëngal mos sa xorom naka def sa xorom mos ko bu yemee rek waa nga duppa mu tooga so bi mooy nekk suñ maalo bi nag léegi nag damaa defar suulaale bi waa suulaale nag is optional am nañu ko bugg am nañu ko buggut nag waaye man daal dama ko like man man li ma fonka la soo li def ni jimboo laa def noonu si génn bi den ma sooti suma netatu netatu bi ma leen wanoon noonu ma raxas ko ba mu set sooti ko fa so dama ko wol nag ba mooka bu mookee ma def fa suma liñoŋ def fa suma kaani waa den ma foom ko into balls léegi fum mu nekk nii nag suñ tooga bi nag fu mu nekk nii pare na léegi dama siy sànni ñaari kaane yi dijja rek parce que dama bugg a kaani man moom léegi mi ngi nii na dama génnee suulaale bi ma teg ko saayit den ma yëkka nag